les écoles, les santé et tout. Qu'est-ce qu'il faut dans ce pays Rien. Salaire, qu'est-ce que tu Parce que les pays, le Mali a fait le con, le Niger a fait le con, le Burkina Faso a fait le con. Et ils vont le payer. On ne peut pas gérer un budget par des valises. Il y a un système macroéconomique pour Niger rien. Des faits, il y a des tenants et des aboutissants. Des entrées et sorties, des accords. Un pays ne peut pas se départir de tout ce qui est fonctionnel sur la relation internationale financière sur la relation internationale euh, sécuritaire et tout ne va tu vas entrer dans la dissuétude et tu seras disloqué un jour ce qui se passe dans la sous-région est une menace est une menace même pour nous le Mali le Burkina Faso le Niger c'est une menace pour nous menace sur le plan économique voyez que le pays là tout est tout est membre de la sous-région Sénégal est saturé de population nous, ignorons raw Nicaragua nous suñ goos yi demee Nicaragua parce que ay nit sax ñoo leen remplace dëkk bi jël place di jaay boo demee ville mënoo circuler borom pousse pousse on ne veut pas dire des noms pour que am des des le Sénégal est envahi. mais cette mais cette cette collaboration ban intérêt la ci état la ci. intérêt économique sécuritaire. sécuritaire parce que mooy léegi parce que mooy mooy mooy sekk suñ suñu. suñu kaay nga quoi. mais fooy jëlee fetal da ngay defar fetal Sénégal ak faut fooy jëlee char faut jëlee avion. foo ko jëlee est-ce que yow mën nga terroriste yi ba la colonisation yaakaar terroristes yi bu ñu lay song yow à à à cinquante mille terroristes nga xam ne Boko Haram yëpp a tas Niger dañ leen a dóor ñu wàcc ci Mali bi ñu ñëwee Mali gars yi fexe ba ubbi leen ay brèche bloqué leen suñu frontière ay cinquante mille personnes yow ñooñu boo leen di guerre mën nga est ñun mën nañu yow suba teel jël la ñuy def ci hôpital yi jël yëf yi di ko guerre di ko guerre terroristes yi Hein. de une ça nous coûte des milliards. Nous avons placé des garcis là-bas. Ça coûte des milliards parce qu'il faut des chars. Il faut avoir une coopération avec les satellites pour pouvoir maîtriser et surveiller ces gens-là. Ce qui est très dangereux, les Sénégalais font du pénalisme mm. Sénégalais, il y a quand même le <coughs> verbe, le sujet verbe et le complément, la nourrit des hommes. Ça nourrit pas. C'est un moyen de s'expliquer et de se comprendre. Mm-hmm. Ce n'est pas le niveau de ces Sénégalais lambda, ce, ce que l'État fait yéen bu man j'ai des élèves yoo xam ne ils sont à Interpol Côte d'Ivoire. Mhm. mais bu ñu la defee message wax la li nekk ci suñu frontière bi da ngay dama man damay dugg ci géej gi di wuti wuti wuti New York mbaa Port-au-Prince. da nga leen di abal parce que da nga naan lii bis bu éclaté da ngeen yeewu kenn du xam fooy jaar. loolu le Sénégal di gérer des menaces de terroristes tous ces gens qui nous cerclent cercle là ils veulent que le Sénégal soit disloqué et soit dans une situation jamais égalée et ils ont infiltré des Sénégalais yoo xam ne ñoom ñoom ñoom loolu lañ bëgg ñooñu ngay dégg. Mm, ak di wax. les les les les les les les ce qu'on appelle parce que les frères islamistes là ce qu'on appelle les islamistes les terroristes xam nga les terroristes c'est de l'islamisme. Mm. c'est de c'est du salafisme. ces gens là ce qu'ils veulent dans ce pays là on le sait te gis nga bis bu amee fii dootoo fi dégg murid doo fi dégg tijaan. te da nga xam da ngeen xam ne lépp dëgg la. monsieur Kandji dañu dañu dañu nga baal ma dañu dañu dégg baatu terrorisme ci ci ci nguur lu bëri. mais ils sont là est fii est ce que ñun. gën terrorisme ils na lu bëri Sénégal te yow def leen ci attention yéen. ci comment ñu réussir mooy lan. fexe nañ ba xale du dégloo ti koo tere du du la déglu koo wax ay affaire parti yeeg nag du la faale mm. du la déglu muy benn premier désobéissance des parents et de tout mm. secondo disloqué même dans une famille kii bokk fii kii bokk fii duñ tuddante bañante ba nga xam ne yow ña ngay àndal moo lay gënal sa bokk bi frère bi nga am ak sa sa ngay duul ak ñoom mm-hmm. am na ñoo xam ne ñoom man am na ñoo xam ne dañu daan ñëw ñuy régler di wax ba biñ bokk ci yeneen parti ak position bi ma am fi ne dañ maa bàyyi ba nañ ma bale yaa ngi may dégg. Mm-hmm. am na ñoo xam ne de salafisme day fexe ba ngay saaga sëriñ di saaga état di saaga institution étatique loolu la salafisme def mooy rébellion morale mooy formation morale. quatrième phase bi nag mooy de prendre un système étatique et de faire la violence sur les gens qui sont pas avec toi nga def leen violence ñiy dee ñiy daw ñiy disparaître nga asseoir sa doctrine ñëpp ànd ak yow c'est comme les talibans. c'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. et que Sénégal ils ont lu toutes ces phases dernière phase bi rek la état bi. <clears throat> am alerte moom la moo tax mu fracassé tous les systèmes qui étaient là jàppale ni moo indi coow li parce qu'ils avaient réussi à ce que benn nit obéirutul yaay ni papa nii na Sénégal amul ben boo wax mu la sama ndey ak sama baay buñ mo ma duma du ma nangam. mais foofu major est-ce que tam du internet bi yéen ngi jiñ fanatisme rek mais. Euh, dafa am sur le terrain. waaw mais loolu facteur la ci mais aussi internet bi amna na aussi. lu mu lu mu lañu mais du ñoom rek ñoo am. accès ci internet bi internet bi dafa liggéey lu bari ci internet bi la ma grande. Mhm. internet bi la gars utiliser ba déstabiliser réew mi. dugal dugal mom lañ utiliser salafiste yi moom lañ utiliser même xana xamone yow l'islamisme et le salafisme ils ñoo gën a aay internet dans le monde soo demee endoctrinement yi am France yëpp internet la ñuy jaar ñoom ñooy endoctriner nit ba mu rey parti parti le professeur la booy bi dañ koy wax nangam nangam il vous a fait nangam nangam c'est parce que vous êtes arabe nangam nangam et puis il veut vivre avoir de l'aise vivre une belle vie et au moment où tu vis dans la déchéance mm. nangam au lieu d'être devenir médecin nangam il t'a empêché de l'être mm-hmm. il a tué ta vie loolu lañ ko bindal wax ko ko gosse bi dem rey parti parce que Patti a été un professeur qui a, qui a, qui a corrigé ça. Mais non, c'est un couteau à double tranchant. Nous avons accès à Internet pour utiliser pour endoctriner. Mais tout le monde. C'est voilà, hein? voilà, endoctriner. Mais de l'autre côté, nos gouvernements aussi n'ont qu'à faire pareil. Non, bon, pourquoi pourquoi il... laisser, laisser la chose, laisser la chose non, les, les, les, Pour me convaincre, je vais te donner un exemple. Je te dis un exemple. Tu sais, si tu as un jëkkër wala nga am benn ndox ci sa njaboot ak yooyu ku ñëw na ne ah sa doom ji kay ba ma gisee kañ bi doon ko jox mburu bi xamoon naa dara dana ko daan mm-hmm. yow loolu doo koo koy gëm doo mën man luma ma la def ma yalla xamne xam ne sama gëm yàlla sama naagam du mën nek les états sont tout le temps en position de faiblesse par rapport à l'éducation des enfants influencé négativement par l'extérieur parce que li ñuy lo xalé ak di len ko wax mais xa gisoo fi benn politicien bu dem ne ah, Aliou Sall sa 400000. mais mais monsieur monsieur Kandji quand vous parlez de salafisme vous faites allusion à qui. Non, je fais allusion. Non, j'ai fait allusion à tout ce qui s'est passé au Sénégal, la politique qui s'est passée mm-hmm. Parce que les, les, choses là, on a vu que les gosses étaient endoctrinés. Étaient endoctrinés. Technique là. Il y a l'art de faire la guerre. Non, l'art de faire la guerre. Nous avons doctrine école utilisée. Il y a l'art de faire la guerre par la propagande, la manipulation. Bon, aujourd'hui, je pense que le document, document, euh, euh, c'est un livre intellectuel qui dit l'art de faire la guerre. Nous avons dit que nous le lire nga liir rubrique yi gars yi doon def nga liir texte tiers nga gis li ñu def Sénégal. beneen bi ci topp. mooy le salafisme technique bi technique bi technique bi pour révolter loo une population da ngay fexe ba xale yi duñu respecté seen waxu waajur bu ko bu déggoo faamu ne nee naa ko toogal toogal ki doom ji dee bari jàmm gën. ñu ne daaroo ceeku dem parce que mënatoo ko téye. parce que affaire projet bi identité la dañuy identifier seen bopp boo bokkee ci projet bi day mel ni da ngaa tekki boo bokkee ci affaire bi. projet ban projet ban. noonu mooy projet politique bi fi amoon. Moi, mais mais. pas l'ex projet bi ñu amoon. ce qu'on appelle la désobéissance et le désordre et l'insécurité parce que la technique utilisée. est. que bu oui bu la mais mais mais 2021 le Sénégal a un problème d'insécurité dans ce domaine. il n'y a pas de haute de sécurité ban là dans les rangs amu fi nous fi am j'ai fait 36 ans de carrière j'étais dans l'état-major j'étais di gérer def investigation ça n'a jamais existé benn problème booy jàpp ni dañuy manifester rek ñoom Ablaye Faye yéen ay gore ngeen ñoom Ousmane Ngom man ñoom Ousmane Ngom Ablaye Wade ñëpp bi ñu reyee merci maa leen tëj devant l'école police ba bët set ñu jàpp leen une heure du matin maa leen fa tëj amutoon dara booba manifester la ñuy def dem y avait pas cela en 2021 on les a suivis de pas l'état les a suivis de A à Z et que ça a été corroboré par la position et la posture mosoo dégg c'est là mesure de parti est un parti terroriste en Afrique même les même les militaires qui se sont rebellés gars ont l'homme l'homme. ce que vous pensez da y' a Europol il y' a Interpol Il y' a Schengen il y' a le FBI y' a y' a la CIA à Dakar tous les gens que vous voyez là ici Les professeurs dans les ambassades tous travaillent là-dessus les rapports du Quai d'Orsay Quai d'Orsay Paris chaque jour il y' a 15 minutes sur le Sénégal Le le Sénégal est un grand pays et bien géré ce que je dis là je le signe et je l'acte les conséquences moi, les xale ils n'obéissent plus à leurs parents dans la doctrine du salafisme il faut insulter les marabouts insulter les institutions étatiques les magistrats les gens les policiers il faut les fébriliser bi le le compte dans le projet même si tu es prêt à divorcer Tu am la femme femmes, xam moment ku sa jëkkër bokkul Pastef nga bokk Pastef yenn àdduna bi. mais kër yaa ngi nekk fii man sama suñu kër sama sama sama papa Pastef la sama yaay du Pastef mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi dund ci jàmm. ma ne ma ne ma ne peut être ay mag lañ mais yow yow yaa ngi nekk yow Pastef nga beeku ci bopp. ma doo doo Pastef. wala yow wala yow. doo Pastef. yow doo Pastef doo Pastef. non heureusement bokkul waaw man yow yow bokkul. Pastef c'est juste que dama leen ne dama bëgg waa c'est personnel ça. mais wuyu ma ma ne la li ma la wax dama ci am preuve. la preuve en est que